likay li ñu xëyee tey jile euh, tey ñu taxaw tuuti démb li ñu gis euh, alors euh, Alaaji Malick semaine passée ba ñuy formé gouvernement bu bees ba noppi premier ministre Ousmane Sonko waxoon na ni altine bi lañuy tàmbali wala def lu ëpp sax ci jébbalante lenge yi ñu gis ni niñ ko defee amul benn xumbute on pense à la primature diggante moom ci boppam ak maître Sidiki Kaba ak fële di ministère de l'intérieur tam muy yoo xamante ni ci dal la am et puis beneen information bi mooy tey jile première réunion conseil des Euh, gouvernement bu bees bi dinañ ko amal tey. waaw jërëjëf euh, soxna naa naata xam nga euh, nguur gu bees gi biñ leen falee li nga xam ne moom la ñu njëkk a wax mooy rupture rupture mooy soppi doxalin waaye tamit soppi yorinu réew mi am na ci lu nga xam ne yi tamit teel na feeñ bi nga xamee ni président sortant. muy euh, le président Macky Sall ak le président entrant muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, def nañu ay échange de civilité mooy bi nga xamee ni avant même euh, la proclamation officielle des résultats euh, ki nga xam ne mooy président Macky Sall dalal na président Diomaye ak ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko ca pale ba won leen ruq yeeg ruqaat yeeg lu ni mel bi ñuy def passation aussi ci biir pale bi c'était vraiment la sobriété amuloon benn xumb-xumb xëy na ci biti pale bi ak ñi nga xam ne ñoo doon tàggatoo ak président Macky Sall ak ñi nga xam ne xëy na ñoo ko doon baraawoo loolu moom moo fa amoon mais li xew diggante euh, premier ministre euh, bi nga xam ne tey moom moo moo mooy bu bees bi euh, di président Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo di maître Sidiki Kaba boobu yi tamit gis nañu. respect bu am ci diggante ñaari kilifa yi sobriété bi ci am waaye tamit qualité document yi nga xam ne moom la maître Sidiki Kaba eh, jébbal ki nga xam ne moo di premier ministre Ousmane Sonko te loolu laata président Macky Sall di dem dafa joxe woon ay instructions eh, ci conseil des ministres bu mujj ni ñoom ñëpp nañu waajal ku ci nekk préparer ay dossiers. ba boo waree joxe leng yi mu nekk ay dossier de qualité yooyu jébbal ki nga xam ne euh, moom moom moo lay remplacer ci logique boobu le maitre maître Sidiki Kaba euh, nekk ak ki nga xam ni moo di euh, Ousmane Sonko mu nekk nag vraiment passation bu nga xam ni c'était empreinte de solennité et de respect beneen bi ci des aussi muy général Tine ak Mokhtar Cissé ñoom ñaar itamit xam nga di ku xam général xam ne moom c'est c'est la rigueur militaire donc nekkul ci ay festivités ak yu mel noonu euh, euh, euh, Matar Cissé aussi c'est un homme bu nga xam ne c'est un homme d'État mais aussi c'est un commis de l'État nit la bu nga xam ni musuñu ko gis ci yenn détails yu mel noonu l'un dans l'autre il y a une prise de conscience de la part des nouveaux dirigeants buy wone ni nit bu ñu la joxee ndombal tànk ni la yow yaay jiite da nga war a tiit waaye waroo feetu mais Sénégal lan la ñu faral di gis. Hmm. mooy bu fekkee ne da nga ni naata la ñuy fal tey waa kër naata ni tekki nañu. Hmm, mbokk yëpp daw si mbokk yëpp daw si. xumbaay sa yaay ko liggéey xamoon na ni di nga am lu mel ni géwél ya jóg ku nekk di tàcc ku nekk farandoo yi ku nekk yaakaar ni tey festin moom moo war a am. Hmm. mais je pense que le premier ministre Ousmane Sonko teel na xamale ni tey ay festin amu fi. pàccoo amu fi. li fi am mooy rigueur ak liggéey euh, këpp kees ak jël alalu askan bi jeex na fi képp ku nga xamante ni sax jox na la ndombal tànk te nga amoon beneen ndombal tànk bu nga xam ne dañ la ko fal na nga ko tekki ñu jublu ci liggéey bi donc je pense que ku am conscience attente ñii xaar bi ñu leen di xaar yaakaar ji réew mi am ci ñoom ak falin bi ñu leen fal ku ci tiitul ci responsabilité yi ku ci tiitul ci li lay xaar doo nit donc ñoom tey xam nañu li leen di xaar le moment est grave et dans pays tout est priorité donc képp ku ñu fi jox ndombal tànk jarul ngay feetu jarul ngay nga ngay mel ni kuy ngénte jarul ngay mel ni kuy céetu li nga war a def mooy concentré wu ci dossier yi te xam ne liggéey bi bëri na te liggéey bi metti na te yaakaar ji yaatu na. Ah, euh, sëñ euh, Cheikh Tidiane est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'ils ont donné le temps que ça soit ministre euh, premier ministre Ousmane Sonko ci cérémonie passation de service bi wala général Jean-Baptiste Tine à l'intérieur. Mmh, je pense ah je pense Malick aussi mi ngi koy rappelé je pense que le mmh. temps a été donné Euh, le début au lendemain de la proclamation des résultats peut-être même avant mhm. euh, bi njiitu réew mi recevoir euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mhm. moment yooyu étape yooyu yëpp ça s'est fait dans la sobriété ba ci Euh, prestation de serment bi nga xamee ne am na ñu bari ñu ngi doon wax dañ ko yóbbu stade Maître hmm. Abdoulaye Wade hmm. Hmm. ñëpp fekkee ñëpp fekkee ko def ko benn événement bu mag mais je pense que le chef de l'État a décidé que ñu defee ko ci euh, anam boobu je pense que euh, c'est très bien fait xam nga loolu aussi day wàññi politique bi je pense que yi fi doon am ci ay genre passation de service ay militants ñoo doon ñëw ànd ak seeni nit bongomaan yi sax tax ci des fois ñuy tëgg euh, je pense que loolu moom euh, folklore la boo xamee ni ça n'apporte rien hmm. euh, peut-être que ñu ci bari dañ je pense que aussi waa Pastef seeni seeni parcours moom mooy xaw a feeñ fii parce que dafa nekk parti boo xamee ni comme ni ñu ko waxee benn constante la am quoi muy Ousmane Sonko amul ay responsable yoo xamee ni dañuy nekk ci gox-goxaan yi di phagocyté ay nit pour ñëw di wone ni naan man am naa nit ñëw ñëw nañ ma topp si mm. ma je pense que c'est pas ça euh, moom moo tax je pense que genre euh, yëf yu mel nii dinañ ko yàgg di gis en plus li ci gën a encourageant je pense euh, mooy dina gën a yombal dañuy faral di wax alternance pas pas au Sénégal rek mais ñeneen ñi suñ ci royee mm-hmm. war nañ xam ni que nguur su jeexee beneen ñëw bu ñu yaakaar ni que ay affaire de rayante lay doon même si euh, am na ay dossiers yoo xam ne dinañ ko topp dinañ ko saytu reddition des comptes yooyu yëpp euh, mënul ñàkk mais lu euh, l'Ousmane Sonko qu'on voit actuellement ce ce n'est pas l'Ousmane Sonko bu ñu doon gis ci opposition bi laa dañuy gis koo xamee ni dafa dal di waxtaan di. négocier en, en quelque sorte quoi du du du le monsieur qui attaquait attaquait tout le temps dans l'opposition la ñuy gis mais là ay échange de civilité ba sax kàddu yu mu yëkkati sax ci euh, parcours maître Sidiki Kaba ba mu nekk aussi des années de service irréprochables bon mën nañ ko jàppee ni que aussi c'est c'est purement diplomatique euh, kàddu yooyu mais euh, essence de civilité yoo xamee ne aussi am na njëriñ ci genre euh, événement yu mel nii aussi comme ni ñu ko waxee tamit ça va pacifier l'espace politique nit ñi ñëpp hmm. nit ñi tamit xam ni nguur buy jeex c'est pas la fin du monde ñi mm-hmm. nekk jaruñu ci mooy yaakaar ni suñ fa jógee c'est c'est fini c'est la vie qui continue la vie est ainsi hmm, te loolu mortale li koy firndeel mooy tey jile ñoom ñu ngi fas yéene dale daje ca pale pour ah, euh, réunion conseil des ministres. ñu koy defee semaine bu nekk je pense euh, li mooy mel ni fast track bi ñu doon wax. je pense tey euh, wane na ni quand waxoon nañ ni passation de service bi lu mu lu mu gaaw lu mu yéex war nañ ko organiser lundi bon je pense que lu ci bëri. def nañ ko tey la ñuy dajee pour premier conseil des ministres euh, ci pale ba bon loolu day firndeel ni quand même euh, ñoom xam nañ ni priorité yi leen di xaar ak askan wi li mu leen di xaaree bëri na et fi mu ne nii l'heure est au travail mmh. Mmh. mais man damay revenir rek ci passation de service bi bu ministère de l'intérieur parce que boobu moom gën a marqué en fait parce que ces deux grands hommes Euh, man laa gis yoo xam ni dañu symboliser un peu la république en fait hmm. parce que démb euh, les échanges de civilité ak même euh, Makhtar Cissé le discours bi mu def hmm. euh, ça a donné l'air pour euh, un peu euh, entre guillemets excusez du terme rabattre la caquet à ceux qui disent quand même que moom Jean-Baptiste Tine chrétien la voilà euh, indi woon ay wax yoo xam ni peut-être méngoowul ak li ñuy xaar moom profitoo na fa démb wax Sénégal chance bi ñu am chance bi ñu am euh, boo demee Joal gis fa cimetière catholique sim euh, ay. ay leen benn. Mm. nga gis également Senghor nekkoon puis pendant vingt ans. Euh, ci dëkk boo xam ni dañ ni ñu fi ëpp ay musulman lañu te chrétien la woon Abdou Diouf am soxna soo xam ni eh, chrétien la woon te nekk na fi ba dem coow jibul donc euh, euh, je pense propos yooyu Matar Cissé rappelé dafa am solo trop te je pense ça a mis à l'aise Jean-Baptiste Tine te pour man démb les généraux yi fa tegoon étoiles yi nekkoon keroog démb ministre de l'intérieur rek mat na pour wane ni moom Jean Baptiste concertation yi mu jël pour jox gëdd gëdd police ak gëdd gëdd ministère de l'intérieur euh, je pense euh, am na mujj boo xam ni mën nañ ko ci xaar parce que y avait général Pathé Seck ay mm. ñoom Léopold Diouf nga xam ni gëjoon nañ leen gis sax ay parti ay général Mansour Seck ñooñu ñëpp ñëwoon euh, xëy na moom moo leen invité woon pour un peu assister lu mel nii parce que quand même ñun on s'en rend pas compte mais l'instant bi ñuy vivre bokk na ci luy taarix di retenir sur notre euh, ci sunu république. Mm. parce que pour man c'est des instants très forts yoo xam ni marqués par la sobriété marqués par l'échange de civilité marqués par une exquise courtoisie boo xam ni entre les gens dangay yaakaar ni ñi Euh, peut-être dañu bokkoon classe sax di soog a retrouver wu je pense que lii mooy symbole Sénégal je pense lii la ñu war a jàpp pour wax ni on peut avoir des différences on mhm. peut avoir des convergences waaw des différents parfois mais euh, li ñu euh, réunir mooy le Sénégal Sénégal moo ñuy dépassé ñun ñëpp mm-hmm. te pour man démb loolu la rencontre euh, passation de service yi firndeel te pour man se ce qu'on doit garder mm-hmm. euh, en mémoire Chérif waaw Sénégal day réew mu mag moo xamante ni je pense que euh, bin defee élection yi encore benn mu nekk troisième alternance bi j'ai vu benn média étranger bu ko wax la leçon de Dakar parce que chaque fois mm-hmm. on continue à donner quand même des leçons non seulement ci dëkku Afrique nga xamante ni depuis l'élection ba léegi même au parce que même a des pays occidentaux yoo xamante ne ce qu'on est en train de vivre euh, qu'on l'a qu'on l'a vécu également en 2012 dund ko en 2020 bu ngeen fàttali ko même ci passation de pouvoir yi en Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade bi ñu ca jógee. Mhm. gis nañ Abdoulaye Wade bàyyi Abdou Diouf mu dem représenté ko sax ci yeneen sommet en 2012 aussi Abdoulaye Wade le dernier conseil des ministres bi mu defoon il avait donné des conseils avec de la répétition à ses mhm. ngir ñu faciliter passation bi expliquer ñi nga xamante donc loolu lañ commencé dund léegi ak Sidiki Kaba bi nga xam. waaw foofu Trump ba léegi félicité wu wax naa ko fi la dernière fois il n'a même pas ba léegi nii mandat Biden bi jeex na il a félicité te ñoom sax nekkoon nañ ci benn contentieux pré-électoral boo xamante ni daanaka dund nañ tuba plus d'un mois laataa ñuy xam le président élu donc Sénégal amut loo xamante ni ci wàll am dañu am république am ab état boo xamante ni ba tax na comme ni ñu koy waxee on par de changement et cetera mais il faut moo tax même les nouvelles autorités xaw bon réforme baax na mais tey aussi ah parce que am na loo xamante ne ay acquis lu fi mm, nekk. Mm. bëgg a changer je pense warul tax ba yenn saa yi nga laal loo xamante ni ay acquis la te gis nañ ko ñi nga xamante ni ñoo nekk déjà présent ci cérémonie bi ay serviteurs de l'État la ñi nekk ci administration bi parce que durée bi nga xamante ni déjà ci loon organiser élection muy feneen fu mu amoon. Mm. jafe am fa ak ni nga xamante ni conseil constitutionnel liggéey bi mu ciy liggéey donc continuer il faut saluer aussi parce que mhm. yàgg nañ ko dénoncé fii ci Sénégal libéraux yi ñoo ko fi indi woon du rek sous Macky Sall mais depuis ba Abdoulaye Wade buñ falee nit benn rek laa ci gis a gis moom mooy Maïmouna Gueye quand on l'a nommé quand même a moo amoon mbumbaay comme alors que ko nit ñi mais au ko euh, passation de service i soxna ñoo indi ay bongoman gis nañ ba journaliste sax ci gën a am solo mooy ñoom ñaar ñi koy def ak inspecteur général d'état yi nga xamante waa ñoom ñoo fa nekk di ko teew donc pourvu que ça continue maintenant nag ci pratique bi parce que lii c'est moins important mais ci jëf ji nga xamante ni c'est des yoo xamante mooy gestion bi ci wàllu sobriété mais sénégalais aussi li ñu xaar ci ñoom ñu def ko mm. et je pense que xëy les autres ministères après la collecte dinañ def passation bi et on, passe au travail parce faciliter parce que nit ñaa ngi commencé gis nga dem moo tax ñoom ñoo ñi koy nekk ci réseaux yi war nañu roy ci waay politique yi ñoom ñoo fi doon xalabante ñu ngi nii di ànd tey mais ba gis nga ko gars yi ngi jébante di di des gens en pâture comme ça ci réseaux sociaux et je pense que ça aussi ça ne participe pas euh, régler problème yi nga xamante wala hmm. di relever les défis xaar Sénégal merci euh, tout de suite euh, ñu dem xooli un jour au Sénégal un jour dans le